Sénégal du du dal du dal ci école bi du dal ci santé bi même euh, entreprise yi du ñu dal euh, soo xoolee même médias yi ñu ngi menacé donc loolu mooy mouvement social mouvement social nag bu amee man na jur lu nekk est-ce que président dina nangu luñ koy laaj luñ koy laaj mooy mu bàyyi sénégalais voter le vingt cinq février moom mu bañ a yokk mandat loolu lañ ko laaj waaw président est-ce que dina ko nangu su ko nangee defe naa du am problème mais wante nag bu bañee mu ne day reporter ba 15 décembre que moom man daa am dina yokk 11 mois loolu lu nekk mën na ci xëj Abdoulaye Wade 2011 gisoon na lii mu rocci projet bi mu yóbbu woon assemblée Macky Sall est-ce que moom dina def comme Abdoulaye Wade ni mu defoon su ko defee defe naa jàmm dina dellu mais bu ko deful nag gisuma beneen yoon bu dul jàkkaarloo diggante euh, Macky Sall ak askanam loolu nag euh, su amee bàyyi nañu sóoraale que force de défense et de sécurité du ñu euh, toog di xool Sénégal di di lakk loolu loolu aussi nañ Macky Sall na ci bàyyi xel.